ah gars yi yéen a ngi ci Mababa Show abonné leen bës cloche bi daal di bës pouce like bi ndax soxla nañ ko loolu lay jëmal émission bi kanam. commencé andi bien ak yooyu bàyyi lépp lépp feneen jaay ko toog quoi ñëw rek ceene fii comme ci lu mu waxee moom man moom laa gis ne mooy xalaat nga ñëw def 6 mois xool bien vrai que 6 mois mënoo ci xam dëkk bi carrément mais tey ji boo gisee benn moo ñibbi di xànju gaay ak affaire yi nga ñëw fii nii def ak moom six mois gis nu muy dundee. dëgg muy xëyee suba di waari di ñibbi si amul jotu dara dara dara. dañ lu métti di nga xam ne waaw Sénégal moo gën a yomb ci yow. kii yor laa wax de. yor business waaw moom am na xaalis ba Sénégal mais boo stable moom Sénégal doxul ci yow quoi. ñëwal donc ñun am nañ fautif ci côté boobu noonu kër gars yi ñoo dem duñu leen wax lépp mais li nga expliqué ne mun nga leen sensibiliser. Mhm. mun na nekk de. mais yow doo dem sa koñ fekk gars yi xonet nga am noo leen bàyyi woon ñëw mu continuer yow nga changé toog naa leen mais affaire dafa tar duñ la déglu. dëgg la mais bu nekkee ku stable laaj na la loolu mun nga ko expliquer. mais yow tamit doo ñibbisi rek tàkk say rajo naan gaa yi noo dëkk ba ni ngeen ko foogee loolu boo ko defee gars yi daje ak nekkoon nañ fa am na ay grand yu ñu ko waxoon. dëgg la kenn lijjanti wu leen. dëgg la ñaan kii daa soxor ñaan soxor. <laughs> dëgg la waaw xam nga laa gisee. waaw lay sant di la gërëm kon ñun papi waaw bee passé moom tàngoon na d'accord ak sa waay yaa yaa bajaan ak sa copain yi te ñaar xarit yi yo lo xalat ci li wax si ci ñaan ñu bees ñi tamit. salaamaaleykum maa ngi nuyu sama gaay di leen wax ne team intense bi ñëwaat na di nuyu grand fay di nuyu tamit grand yusu uh-huh. mais dafa am fu may commencer rek comme du question sax tontu mais damay leral quoi parce que sang ba légui maa gis gaay di laal gauche droite quoi man bi may nekk Sénégal. jàng lañ ma santoon man xale laa woon quoi xale laa ko woon dama doon jàng rek jàng lañ ma defloo woon uh-huh. soo dugal ma ci daara bi ma jàng ma jàngee wàcc ñaari yoon kaamil ma pare ñu dugal ma ci école bi après bi may commencé di xaw a stable ci école bi tuuti ñu jël ma indi ma fii léegi loolu laa doon leeral quoi mais du question ne dama toogoon rek xam nga ñu may jox may lekk daawuñ ma jox daawuñ ma ci may lijjanti samay affaire <laughs> waaw. waaw jarul foo ma expliqué ko mu leer quoi balaa gars yi yaakaar ne da leneen la <laughs> <laughs> mais bu fekkee nag ci wàllu euh, immigration bi comme ni ngay ñëwee fii so comme li ma ci mën a wax mooy euh, comme nga jóge Sénégal yor fa sa business soo bëgg a ñëw fii du question ne da ngay jaay sa da ngay jaay sa business pour ñëw fii parce que fii du question da ngay jékki nu la neex nga fii duggee pour nga dugg fi il fallait que nga am visa étudiant wala nga am visa commerçant wala sa pape indi la fi wala sa yaay noonu nga fi mën duggee mm-hmm. mais gis naa ci ay commerçant yoo xamante si ni am nañ ay visa commerçant pour ñëw fi mais bi ñu ñëwee dañuy try comme five months yi ñu fiy am dinañ try xool dëkk bi naka la mel mais teewul seen business Sénégal am na ñu leen fa nekkal fii koo fi gis mu bàyyi business am Sénégal ñëw rek fekk na am na ko ko toogal foofu Sénégal mais du question moom moo yor business am bàyyi ko pour ñëw fii pour mën a xool lu fi nekk tëj palaasam wala mu jaay business am et tout am na ko ma ci kam comme ku ma ci xam koo xam ne laay Sénégal la nekk yor fa business am. Mhm. mais moom bi mu ñëwee fii troye na xool na yaakaar na ni dëkk bi boo fi ñëwee da ngay for xaalis te demewul noonu ci dissoiseuse la mujj maa ko yóbbu ci benn restaurant mu fay def dissoiseuse mais one day la fa liggéey bàyyi. waaw mais xam na ni dëkk bi tar na metti na. du mhm. question nu la neex nga amee xaalis. Mhm. moo tax li ma ciy wax pour mu gàtt. ku yor sa business senegal mu nekk business bu stable bu baax. toogal nga gàddu sa business. Mhm. te xam ne affaire bi moom du question da ngay ñëw fii rek am affaire de wërsëg la quoi man ñi ne am na ñu nekk Sénégal ëpp xaalis fuuf ñi nekk fii loolu du ci dara. Mhm. pour man daal affaire de wërsëg la. kenn ku ne ak sa wërsëg nekk. Mhm. loolu laa amoon ci lu ma ciy wax quoi. waaw bu fekkee ne yaakaar dañ na ah da am lu ci bëgg a c'est-à-dire ma ñu ma am toujours rek lu ma leeral quoi. ok dama c'est-à-dire. waxuma ne bu kenn ñëw. dëgg la il faut mu leer que ni bu kenn ñëw. ok waaw parce que am na loo xam ne boo ci jaaree. dund ko. dëgg la ñëw Amérique. dafay baax léeg lekk ngay wax. mooy li ma wax sànq mooy mooy li moo wax sànq rek. par expérience peut moo tax ñu wax. xam nga actuellement yi nekk Sénégal. ñaata nit ñoo nekk Sénégal bëgg ñëw Amérique. du jeex ñëpp toute la jeunesse. bëgg a ñëw amul mm. kenn ko naan kaay ma jox la visa États-Unis doo fi ñëw ñëpp. ba tey jii am na ñoo xam ne am na ko ne 6 millions am na ñoo xam ne ils millions fii. dama jàpp ne 8 millions. 8 mën nañ ci liggéey mën nañ ci liggéey peut-être Sénégal. Mm-hmm. mais nañu leeral que ne ñun waxuñu bu kenn ñëw. Mm-hmm. dañu ne bu fekk ne da nga nekk au Sénégal. ak ku nekk ni ñëwee. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dañu nekk situation yu stable. am salaire. di liggéey mais dañ ko fay bay ñëw fii yaakaar ne fii dañuy ñëw fort dolarité alors que fii boo fi ñëwee d' abord de un dafa am obstacle yoo xam ne mooy jàkkaarloo ak yow dëgg la benn bi langue bi dëgg la ñaar këyit dëgg la mais am na ñoo xam ne tey ñëw nañ fi ñëw la ñuy rancé bool on dit la vérité ça dafa bëgg bu ñuy wax bu ñuy waxtaan aussi mm-hmm. nañuy wax loo xamante ne nii mooy dëgg dëgg la tey bu fekkente ne da nga ne cëpp ci dëkk bi dafa am obstacle yoo xam ne mooy taxaw sa kanam ça yooyu yëpp rek pour nga jéem ko affranchi euh, pour nga jéem ko romb du benn at du 6 mois du un an du deux ans foofu la ñuy waxee te li nekk Sénégal ñun xam nañu suñu état ni mu mel Sa à dire man dugguma ci cadre état parce que bu duggé ci cadre état rek dañuy dem ci politique même bu ñëwé ci politique rek dañuy dañuy sulli faiblesse bi quoi faiblesse eh, yi dañ koy sulli non non man waxuma dëgg la lu wér nga wax dëgg la d'accord wala ñu bañ a d'accord dañuy waxtaan dañuy expliquer parce que comme nga kéro da ngeen wax ku nekk ni mu fi ñëwee am na ñoo xam ne fay ñu visa ok dem nañu ambassade am nañu visa am nañu nekk Sénégal ñoo xam ne am nañu am nañu visa toog fa mais tamit ñuy continuer seen liggéey dañuy ñëw vacances dem ñu delluwaat dafay baax waxtaan ñu wax loolu c'est-à-dire du ci New York rek ba ci Canada ba ci France ba ci Italie ba ci feneen dañuy parle pour la diaspora sénégalaise dañuy am message bi ñuy véhiculer pour ñi nga xam ne ñi ngi Sénégal foofu la ñuy waxee mais néewuñu bu kenn ñëw ku bëgg ñëw moom kenn mënu laa tere ñëw dëgg la waaw mais dañuy leeral rek waaw dëgg la léegi bu ko juste benn précision waaw mais ga lay gàntu benn une rek moo euh, comme euh, li nga wax noonu c' est maanaam wàllum gars yi di jógee Sénégal maanaam sénégalais seen déplacement ñëw par exemple États-Unis mhm. man dafa bëri ay facteurs yoo xam te nii moom moo dafa ko moo ko laal mhm. maanaam su ma su ma nee état maanaam ñàkkum koom-koom Sénégal mhm. tax na ba tey euh, déplacement yi di am. ñàkk tamit bañ def dara comme ni ko sama grand di expliqué. xam nga yooyu day tax ñu des fois nit te booy seet sa businessman yi bàyyi seen business di ñëw fii sax bëriwul. xam nga fii Sénégal euh, fii dafay gis koo xam te ne nii day am liggéeyam bu baax Sénégal mu bàyyi liggéeyam soit mu démissionné wala mu def leneen mu daal di passe dagg liggéeyam daal di ñëw. comme grand bi muy expliqué noonu ñi ñi fay ay millions yu bëri cest à dem demander visa. mais après avec leur de poste ak billet bi ñuy fay moo tax grand bi expliqué naan. nga gis ko yor 8 millions maanaam soit euh, moom demande de visa may nan ko après am na argent de poche am dem dagg euh, euh, ticket doog a ñëw quoi waaw mais dëkk bi nag moom man moom ku bëgg a ñëw moom bon dama naan ne ñëwul quoi franchement mais tamit comme ni ko grand bi expliqué je suis totalement d'accord parce que tamit man moom nangul na ma li ma wax man dama koy nangul li mu wax ak sama grand bi xalifa waaw dëgg la ñu lay ñu lay ñu lay sant di la gërëm baax Youssou ak suñu grand bi di grand fay waxta ngeen ci wax wax ñu fi wax ñëpp seen wax sell na rafet na dal na te xam-xam kese la léegi bu ko defee ku ci nekk euh, laal nga ci même bu fekkee xaabaabal nañ léegi dañuy dem ci ci ci ci ci sujet bi bi tax bu tax ñu ñëw tey mooy ci intégration parce que li ñu wax yëpp baax na mais ndax ñu ne fii en tant que immigré nan lañu waa dëkk bi gisee ndax da ciy baax ñu xamal ñi ne Sénégal ak ñi ne feneen fu dul Amérique ñu xam les Sénégalais ou bien les Africains ñiy dund fii ci dëkk bi ñaan Amérique nan la ñuy am ak raw rapport yan rapport la am ak waa dëkk bi ndax loolu dafa baax am solo baax ci ki nga xam ne ëllëg day ñëw ndax mu mën koo jëriñ mu xam nan la war a mën a taxawee may tàmbale ci Badiane di ko laaj ne ko Badiane

bon comme yeneen communauté yi yëpp. Mhm. dëkk bi moom boo ñëwee par la force dangay ngay intégré. waaw euh, mais intégration bi nekk na loo xam ne euh, nit ku ci nekk rek euh, domaine bi nga nekk aussi. Mhm. bu fekkee ne da fi ñëw nekk étudiant peut-être ni ngay intégré ak nga xam ne dafa nekkoon ca àll ba doon sàmm am visa ñëw ni muy intégré peut-être mën na mën na wute. Euh, ba tax na nag euh, boo dans le de de manière euh, généralement. Hmm. nek na intégration bo xamante ni bu positif la quoi. parce que euh, ñun sénégalais ku ci nek xamné né sénégalais bon ñun fu ñu dem jamm lañ fa yóbbu parce que suñ dëkk ba jamm lañ fa bàyyi. Hmm. lépp lu ñuy sék kan américains yi tamit jamm lay doon. Hmm. du ñak nak cas yoo gis règle bo gis am nay exception

donc euh, avancement bi ñu am fii nii entre communauté sénégalaise bi par rapport ak yeneen communauté yi peut-être loolu mën nañ ci waxtaan ñu comparer xool ndax ñun est-ce que exactement ñi ngi doxee ni ñu war a doxee ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi njëkkee immigration nekk ay sénégalais est-ce que ñoom tegu nañ ci yoon bi nga xamante ni yeneen communauté yi ci lañ tegu ba peut-être am fi yenn mhm. vraiment toogi nii mhm. am fi yenn avancement yi loolu je pense que euh, mën nañ ci waxtaan dëgg la loolu nañ ci ñëw. parce que loolu ci euh, dama gisoon ne comme li nga wax noonu mooy intégration bi du ci ñëpp la yomb ñu jox xalifa ndax ndax li muy wax dana intégration bi yomb na maam. waaw mais gëm naa ne waaw maam intégration mooy mooy mooy waaw suñu nekkin suñu nekkin ci dëkk bi ndax si ñëpp la yomb pour yaakaar naa ne yombul si ñëpp parce que bu yombul si ñëpp di ngay gis ñoo xam ne dañuy ñëw dañuy day métti ñoom bala ñuy dégg bi. intégration la ñuy culture américaine bi bu ñaan Amérique amuñu culture mais pour ñu bok du nekk gis yu nekk 40 ans anglais ko wax. xam kon kon kon kon bu yombul biir. biir rek dund. man gis question bu am nga maanaam mooy intégration boo nekkee New York nga nekk bu nekkee New York nga nekk. Mhm. intégration bi day yomb ci yow. dëgg la ndax communauté sénégalaise bi New York dafay bëri. Mhm. mais par exemple comme gars yi def état yi bu nekkoon ni yow da ñëw rek ñu sànni la comme man fañ ma sànni woon. ci àll bi Boston Boston. nga yeewu doo gis benn benn black ñëpp yow yow la ñuy gis sax nga nekk fa ku fa gën a ñuul. so <laughs> doo mun a coob ceeb doo ko mun a lekk. xam nga yow nga ñëw ci dëkk boo xam ne yow déggoo anglais benn. Euh, ñu ànd na ci dëkk boo xam bi da lay sonal. la culture bi bokkul ñett xam nga yow li ngay li nga doon gis sa dëkk ak li gis c'est diamétralement opposé léegi da nga war sa pour mun adopter ci culture bi nga nga fi fekk ba conserver yow li nga yor ba nga yow ci ouverture conserver yow li nga xam moy mhm. sa moy sa culture moy sa culture li nga xam mom nga am. dëgg la soo loolu ñaari bataille la quoi soit da ngay dem ba jàng dem ba nga xam yow culture américaine bi da lay dominer. Mhm. wala nga rester authentique quoi sa culture sénégalaise ba paré am ouverture dëgg la soo loolu du du lu yomb quoi. yombul yombul soo du lu du lu yomb. ci benen bi manam intégration bi entre sénégalais yes ci ci fond bi nii gars yi intégré nañ mais boo demee ba ci business comme bu nekkee ni yow business ngay def comme man par exemple dama joxe sama exemple quoi. le micro yes comme bu ñuy bu ñuy def business comme ma ni ok man entreprise bi laa yor quoi damay envoyé ay conteneurs yi nga xam ni africains yi nga xam ne dañuy yóbbu conteneurs Afrique yëpp dama lañ koy yóbbu. dëgg la soo da ngay gis sa benn concurrent boo xam ne benn espagnol la.

ñëw ci yow ni la ok jox ma benn shipment buy dem buy dem buy dem buy dem Dominicaine République wala Porto Rico duñ ko duñ ko def. ndax ñoom dañuy préféré. jox ko seen xeet quoi. côté boobu. mooy jàppalante bi suñu ci côté économique loolu si ñëw comme par exemple yow. boo nekkee fii di di dóor sa sa barber shop wala ngay def ay installation nga gis benn sénégalais buy dem feneen di ko fay defee wala di jënd ji yeneen bagage yi nga xam ne yow am nga ko tam xam ne kii kat. fii la nekk Sénégalais la jugee na dëkk ba ñëw na ba fii na business am stable na so dama war a support black business quoi. comme communauté lañ lépp lu ñuy def nañ ko nañ ko dugal ci nga xam ni ci sénégalais yi la quoi. dëgg kon su ma la déggee yaa yaa ngi wax ci ci jàppalante bi mooy ci. ci mooy ci côté économie yaa ngi wax ci jàppalante suñu biir. ama mais ci côté immigré ci côté intégration ba tamit loolu lu am solo la mais tamit maanaam ndax tamit. ñun dañoo war a rek jàpp ci ni nga waxati sax dañoo war a di di di des suñ des suñ biir rek wala dañoo war a ubbeeku. ubbeeku bi ubbeeku bi bu tax bu dee intégration bu tax ñuy wax mooy ubbeeku bi mën a saafoonteeg waa dëkk bi. ndax ndax loolu ñu ñu ndax loolu ñu ngi ci. yes euh, boo ñëwee moom boo yemee sa biir rek doo jëriñoo ci American dream bi quoi. Mhm. soo ñëwee ni man sama bopp rek laa yem. so do muna jot ci yow li nga xamni mom la ñepp di ut ci fi quoi. la so bo ñewé da ngay tijjeeku. jéem a xool porte yi nga xamni porte yu mag yi gaay di tijji quoi ndax fi xam nga dëkk bo xam la da ngay oser am li nga bëgg am sa goal nga set ko nga ni man li lay uti nga dem uti ji ko quoi mais bo ñewé yam sa bokku kese yam ci ci communauté sénégalaise bi kese nga ni man fi rek la yem mm-hmm. peut-être mën nga ci génn. mais day am day am ay limites quoi. deug dogguma la. maa ngi jégalu li nga wax amna solo loolu ñu dem ci grand fay. grand lim wax lay lay la question bi moy ci mbirum intégration ba léegi manam ndax bu ubbeeku bobu noonu manam s'ouvrir bobu noonu pour mën intégrer parce que man suma jappé jàppee li intégration moy deug la moy nan lañuy fexé bu bok ci dëkk bi wa mais pas ñu ñu japp suñu jàppale suñu biir lu bax la parce que communauté lañ c'est normal ñu du stick together moy ànd dem mais ndax manam jot ñu gën a ibbeeku ci dëkk bi di dugg ci dëkk bi di def business yi waa dëkk bi di def di jéem a dugg ci li waa dëkk bi di def ñu koy def pour que ñu ñu ñu jàppee suñu bopp pas ab comme ay américain mais ci en terme de business wala ci en terme de xam nga living dund quoi investissement xam nga foofu c'est-à-dire pour pour tontu dina mën a yomb parce que xalifa wax na ko léegi léegi mhm. parce que xalifa wax na ko léegi léegi mhm nit ki bu fekkente ne tu ambitieux. Mhm. yaay dem fu sori. dëgg la mais bu fekkente ne da nga limité ne man fii rek laa bëgg yam fa yam. dëgg la bon mën nañu wax ne ñun généralement les africains parce que man yàgguma fi. dëgg mais bi ma ci dëkk bi li ma def mooy jàng dëkk bi. dama ne généralement ñun les africains dafa am ci liggéey yu ñuy yam. ñun ak ñu jugee de l'Ouest. Mhm. ci liggéey yoo xam ci yooyu rek la ñuy yam. ma lim. jarul lim nga comparé jël benn Nigeria lay jugee bu ngeen nek fenn di liguey yak mom mais dafa lay wax na la fii ak un an wala fii ak deux ans li lay def. dëgg la nga xam ki donc pour mu dem amna ambition te boo am ambition tu es obligé nga dem nga intégré wu. te fi di nga dem ci benn place nga fay liguey nga nek yow do nga benn sénégalais dëgg la benn waay jugee Mexique. kenn jugee France kenn jugee Porto Rico. dëgg la kii jugee Pakistan. tu es obligé intégration parce que bokkuñu culture bokkuñu dara ku nekk da ngay jéem adapté wu ci sa morom.

fi muy njëkkee mooy langue bi. dëgg la mooy fës. moom mooy fës. Mhm. di nga jéem a dégg langue bi. Mhm. sa bët dina jéem a rëy. li xalifa waxaat su ma ñëwaatee <laughs> aussi. <laughs> dañu wax ne ñun sénégalais yi kooku peut être beneen domaine la boo xam ne nii buñ ci waxee am na lu négatif lu bari. mais am na lu positif aussi lu bari. ci biir communauté bi. Mhm. dama xamul ba xam sujet la boo xam ne nii mën naa ci débattre wala. no jarul wax exactement. bu dee intégration bi moom. c'est c'est une obligation. c'est une obligation. Mhm. mais mënoo nekk ci benn dëkk rek pendant 5 ans pendant 10 ans. sans 116 bi ngay dugg ceeb laay goudi, on olof laay làkk mais non quand même il faut être ambitieux dëgg la bu ko defee papi kon yow ñu bàyyi la nga nga nga nga nga dugg ci xam nga. waaw indi sax sa bu fekkee affaire intégration bi moom li ma ci wax du du du bëri quoi puisque. aw ma ci xam-xam bu baax a baax mais li may mën a wax mooy bu fekkee da nga ñëw ci dëkk fekk ñëpp di def taatu neen li ko olof bi waxee da ngay ànd ak ñoom def taatu neen rek nga gis loo xam quoi. mais bu fekkee <laughs> nag mais du question ne da ngay da ngay ñëw ci dëkk ah nga isolé wu xam nga. ne ñi maa ñoom culture du ma dugg seen domaine wala du ma bokk ak ñoom dara et xam nga loolu dafay xaw a metti quoi boo ñëwee ci dëkk il fallait nga xool li dëkk bi def ak li muy jubal nga nekk ci. Mhm. man pour man noonu laa ko gisee quoi mais bu fekkee nag euh, wàllu comme nga comme li sama euh, grand wax xaw ma ci d'accord ak moom quoi. il fallait nga dugg ci yenn bu fekkee da ngay jënd dara ne ci sénégalais bi laa koy jëndee walla ci leneen bi laa koy jëndee loolu c'est impossible il fallait nga dugg ak ñoom dugg ci boutique gu américain yi wala ci boutique gu naar yi parce que dugg boobu ngay dugg di nga jàng ci ñoom lu bari. Mhm. au moins mi ngi wax ci wàllu langue bi. mais bu fekkee à chaque fois da dugg ci sénégalais bi rek di fa jënd. wala ngay dugg ci restaurant sénégalais bi rek di fa lekk sa communication ak américain yi du mën a du mën a du du mën a stable quoi. du mën a stable il fa que nga. yéen comprendre naa nga xam nga ni tax non ñoo bokk li ñu dafay développé ci loolu rek. li laa ne la. dafa am beneen côté boo xamante ne nii à part intégration bi ñun communauté bi parce que moom dafa expliquer problème mu business. comme moom dafay def business am. Mhm. Sénégal bi day préféré dem xool benn dominicain jox ko ko non dama naan daf ko war a jox Sénégal bi parce que nous dans nous. ma ne man tey su may jënd suukar wala ay meew yooyu. bu dugg naar mi ngi fii boutique sénégalaise bi nga fi damay préféré dem ci boutique sénégalaise bi mais waxuma ne demee li ngay sol yëpp ci ñi ngi koy jënd ci américain bi même daal am lo xamante ne dafa am loo xam ne bi la quoi mais mais mais mais mais mais mom li muy wax li muy wax ah. li muy wax may may gisee mooy juste rek manam le fait que il fallait ci bokk waaw ci intégration bi tamit ba légui manam muy gën a ubbeeku bi bañ a gis dëgg la ne Sénégal mais sénégalais moo mel noonu ci ci ci ci ci lu wax ci jàppalante loolu ci jàppalante bi la mais ci intégration ci mën a bokk ci dëkk bi. Mhm. ba nga xam ne tey jii nii li waa dëkk bi yëpp di def yow di nga ko mën a def. Mhm. man damay dellu si ci ci ci ci joxal ma kii. Euh, xaaral ma àggale. waaw kay bisimilah waaw dama bu la neex àggale ma laaj ko. léegi bu fekkee nag ci wàllu intégration boobu mhm. noonu la demee ko il fallait que nga dugg ak américain yi. pour mën a xam li ñuy dund. man damay damay nekk ak ñoom lu ci bari. avant may dégg langue bi du question ne dama dem dama dem score rek pour dégg langue bi. dama ci am ay xarit. fi ñuy dem ma fay dem. du question damay xool xarit yu bon ma ànd ak ñoom. dañuy tux dañuy naan wala kii. mais duma def loolu mais dinaa ci am ay xarit yoo xam ne au moins dinaa mën a communiquer ak ñoom. pour mën a dégg seen langue. dinaa mën a communiquer ñoom pour mën a xam système mu dëkk bi. ñu mhm. xamal ma. Mhm. puisque mënoo gis sa moroomu sénégalais rek mu yàgg fi nga ne kii war na xam li nekk ci dëkk bi quoi. non du loolu puisque li nga ko wax sànq. gis nañ fa ay pas sénégalais yu am 40 ans ci dëkk bi boo leen waxoon Clarence Touré bii xamuñu ko. dëgg mais pour nag nga xam foofu il fallait nga duggantee ñi nga xamante si nii ñoo dëkk ci dëkk bi. dëgg la pour man daal noonu laa ko gisee ko dëgg la waaw mais nag euh, pour affaire affaire sénégalais bi duggantee ñoom kii sénégalais yi ñiy dimbalante seen biir bariwul de. dëgg la africain sax laay wax la. parce que yéenante wuñ lu bari quoi. dëgg la maa ngi jégalu nag bu fekkee. non non non sa xalaat nga wax te li nga expliqué c' est bien clair. non damay jël ci yow li nga wax mooy ci ragal bi. Mm-hmm. pour man ci intégration lay laaj quoi may laaj maam ndax suñu ragal ñu africain wala suñu ragal ñu sénégalais ci. maanaam ragal daal maanaam ragal ragal maanaam ragal système bi moo tax ñu ñu limité laaj question boobu. Euh, inté intégré dafa mais comment intégrer nan ngay intégrer mhm. Amérique c'est un système complexe man man sax dama naan Amérique c'est un système mixte boo déggee mixte y a toutes les nationalités